ko mën naa am dangaa juum ak mën naa am juum ak mën naa am suturaal sa bopp yooyu waaye kii moom bu ñu ko xasee jàpp moom yonente bi ni uqtulul faaila wal mafuula bihi rey leen ki koy def ak mu koy def lu tax parce nekk mooy yàlla yoo xam te ne day taaddi maam day xam nga am na mooy yàlla yoo xam te nit ki ci moom la yam day naan sànga tudd jeex li muy def mooy day mooy yàlla par di tasaare mooy yàlla tasaare mbon nga ci kaw suuf comme li kii doon def nga xam doon tasaare mbon nga ci kaw suuf moom doon tasaare mbon nga ci kaw suuf kooku daa am beneen atte bu mu amat ci lislaam borom bi subhaanahu wa taala mi wax ne auzu billahi min shaytaani rajim innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauuna fi l ardi fasaadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al ard dalika lahum xizyun bàyyi ba jeex yàlla nee na payu ñi nga xamante ni yamuñ ci mooy yàlla waaye dañuy tasaare ak mbon ak mooy yàlla ci kaw suuf de man yàlla mere naa leen ba seenu fay ba ay ñu xattalu nañ leen daggate nañ leen rey aw yu sallabu mbaa ñu wekk leen aw tu xattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf wala ñu dagg tànkan yore loxo càmmoñ aw yum faw min al ardi wala ñu génn leen ci biir dëkk bi sànni leen ci àll ba ngir lan ngir gàcce leen rey toujours ngir bëgg toujours leen rey fii ci àddina te bu asee jaman yàlla ma gën leen a duma ma gën leen duma waa kër Seydina Luut alayhi salaam góor jigéen ña fa nekkoon nga xam ne keroog ba Seydina Luut amee ay gan malaaka yi ñëw jógee kër Ibrahima may Ibrahima doom ba pare jógee fa dem kër Seydina Luut ba ñu agsee ñoom yi ah ba ñoom malaaka yi woote ba dañoo daal di woote jabari Seydina Lut moo woote daal di waa dëkk bi daw si gaaw sama borom kër am nay gan yu rafet yu taaru malaaka yi ñëw nekk ci biir naa Lut xamul ne ay malaaka lañ naan leen ñii samay gan lañ dimbali leen ma ngir yàlla bañ leen a jël bu ngeen bëggee sax ma may leen ci sama doom yi jigéen yi ngeen takk ci hunna atharu lakum ngeen takk ci ay soxna ñoom laab nañ da ngeen bàyyi la ba sama gan ñu ni ko ñun soxlawuñ sa gan ñu góor ñi wa innaka ta'lamu ma nurid yow xam nga liñ bëgg yow Seydina Lut sa gan ñi lañ bëgg jox la ñu tëddee leen bi Seydina Lut di xëccoo ñoom buntu bi la malaaka yi ni ko Lut noppil bàyyi leen xanaa xamoo ni ñun inna rusulu rabbika ñun ay malaaka lañ bàyyi leen Seydina Jibril alayhi salaam moo njëkk a jël ab loxoom raay ko ci seen kanam ñoom ñëpp ñu gumbaadoo biñ gumbaa ba pare borom bi subhaanahu wa taala mer sànni leen ay xeer yoo xam ci ban lañ ko liggéeyee musawwamatan inda rabbika ay xeer yoo xam ci ban lañ ko liggéeyee xeer bu nekk ñu bind ci tur kenn ci góor jigéen ñi suñ boroom sànni leen ko ñu faatu buñ faatoo suñ borom yëmut ci lool de dafa jël la féete woon suuf ci dëkk bi jëmale ko kaw wa jaana aaliyaha saafilaha la féete woon kaw mu jëmale ko suuf yëmut ci lool de wa amtarna alayhim mataran suñu borom pare taw taw bu baree baree baree baree bëri nee na ngir raxas foofa ba salte salte yooyu dool fa nekkati li nga foofu ngoon mooy maam mbuugalum góor jigéen moom mbuugal mu gën a métti si lislaam amut muy njaaloo téeméeri yar lañ lay door mbaa ñu rey la waaye bii moom waaye saxoon na fil ardi fasaadan ñuy yàq ci kaw suuf góor jigéen yi tasaare ngóor jigéen ci lañu bokk léegi nag borom bakkaar bi ba tey tamit nag day wóote suñu fàllu ak borom bakkaar bi nga xam wóotewut ci bakkaar bi nga xam ne mi ngi def bakkaar boo xam moom waaye wóotewu ci ak borom bakkaar bi nga xam te ni moom day def bakkaar ba pare di woo nit ñi ci bakkaar bi di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko defal promotion buy wax ci télé bi di wane moom góor jigéen la ba parfois sax ñu koy publicité ñu maam moom mu nekk ab publicitaire ba ba ba ah, ci xew yi sax ay xew kilifa yu mag a mag ay góor jigéen la ñuy woo ñu ñëw di ndongo ndaw taliya léegi nga xam ne kon dafa mujj léegi nekk ak star nekk ab liggéey boo xam ne dañ koy def ba pare nekk suluk saw yi nekk ak nature nature ci ñoom kooku laa wax ni moom diis ko jàppee ab jullit te képp ku ma ñu dëkku ci borom xam-xam naa la il samay adil la parce que dafa daganal loolu moo tax ci borom xam-xam yépp ijmaax nañ dëppoo nañ ci képp ku daganal lu yàlla araamal. ab yéefar nga mu des beneen mbir tamit suñu fàllu mooy ni ñun waa lislaam ñun waa may nañ ñu ñuy attewoo lislaam ji suñ biir tam bañ a àgg ci rey wala dagg loxo waaw ah, ab communauté musulman nekkee ci ab dëkk ci ab koñ wala ab ab famille daal ne ñun kat dañuy lislaam léegi ku njaaloo nañ la dóor téeméeri yar boo ko nangoo ku naan sàngar la nañ la dóor juróom fukki yar ku xas nit nañ la dóor téeméeri yar góor jigéen bu fi ñëw tamit danañ àtte ci yow nangam ak nangam ak nangam waaye du àgg ci rey su boobaa nag su boobaa communauté booba du àgg ci su ma su ma waxee nag du àgg bu garaaw moo am suñu faal bàyyi xel loolu parce que mën naa indi problème su ma waxee du àgg ci rey mooy du ku rey ñu rey la du ku sàcc ñu dagg sa loxo waaye nekkul ni imaam ci boppam mu taxaw daan ni ah man imaam kat dogal naa ci diw sàngam ni buñ ko suul ci armée li jullit yi. kooku taxasiir la taxasiir lañ koy wax ci fiq taxasiir mooy imaam am na droit wàcc ab atte ci kaw kenn koo xam te ne ci biir communauté bi la bokk ba pare di yàq ci kaw suuf si imaam am na droit wàcc ci moom ab atte am na droit jàjj nit ñi ni leen kii kër bu ko suul ci suñuy armeel parce que lii ak lii ak lii ak lii ndax buñ ko suulee suñuy armeel saddan li zaria li wax sadd zaria mooy maanaam ub tëj buntu bu nit mën a jaare pour gàkkal lislaam wala tey bunt bu mu nit mën a jaaree pour defal promotion lu bon ndax tey ab góor jigéen bu faatoo ñu jël ko ni suul tuubaa lañ ko suul ci misaal waaye leew na lañ ko suul su boobaa dana am leneen loo xam te ni dana ko def ci psychologiquement ci bakkani góor jigéen yi ba tax ñoom ñoo kon ñoom la ñuy def acte nature la moo tax ma ni kon imaam ba def loola wax dëgg yàlla borom xam-xam dañuy wax ne al istihaadu laa yanqudu l istihaad maam imaam ba bu fekkee dafa farlu ci atte sharia ba génne atteem